benn décret bi créé certificat de spécialité qualification ci juróom benn weer parce que yenn métier ci juróom benn weer ñu lay fay former am qualification ci métier yoo xam ne économie réew mi moo ko soxla def nañ ci alal bu bari pour ñi nga xam ne ñoom amuñu benn qualification ñooñu donc muy métier bare bare chaudronnerie tey jii ñu ngi tabax lu bare bare kuy tabax kër soxla nga ay carreleur soxla nga soxla nga métier yu bare bare ci hôtel bi soxla nañ métier yu bëri pour ñuy liggéey ci hôtel donc façon métier yooyu yëpp am nañu am qualification benn moo xam am nañu brevet bi wala amuñu ko ñooñu ubbi nañu ay centre de formation professionnelle centre yooyu moo am tey Gossas moo am tey Nioro moo am ci yeneen i dëkk centre yooyu laa ne chef lieu département bu ne danaa fa centre bu ne mu ngi coûté un milliard deux cent un milliard pour que ñoom itam ñu former leen ñu def froid ñi def climatisation ñi def voilà xeetu na ci yooyu yëpp mécanique ak yeneen i métier yeneen i métier loolu aussi ñu ngi koy def pour que ñi dugg école bu ñu tàmbalee ba ba yegg seen de trente pour cent yi a dem ci école de formation bi. beneen mooy ñi dem ba am bac wala

boo leen xoolee offre de formation mooy luy tax ndaw ñi am dañuy wax possibilité ñëw am liggéey d'abord liggéey bi nag koom-koom bi moo koy joxe te xam ngeen ni Sénégal bu ma ko jëlee léegi ñu ngi jëlee koom-koom bi ci 1,5 pour cent de croissance tey jii ñu ngi ci 7,2 pour cent loolu damay tekki mooy économie bi dafa dafa dafa jëm kaw.

muy permettre loolu yëpp nag dinañu xam ne si ginnaaw am na ay emploi yoo xam ne peut être emploi ruraux la waaye am na ay emploi yu ci nekk dans sa bopp mais bu ñu paree formation yëpp nag ginnaaw état bi moom li muy jël mënul faj mënul faj mënul régler problème demande d' emploi yëpp parce que état bi gën ngaa bëri fukki junni nit lay jël par at. te nee naa leen ñaar téeméeri junni liggéey kon il faut ñu développer entrepreneuriat entrepreneuriat mooy bu ñu leen formé ba pare outil bi DER mu délégation à l'entrepreneuriat rapide at mu ne ma ci fanweeri milliards te fas yéene ko yokk ba juróom fukki milliards par plus boo amee métier boo xam boo nga ñu ubbil le salon financé la ko ci anam yu yomb boo dee tailleur ñu jox machine ubbi la nga mën a dem les mécaniciens ñu aussi un atelier ainsi de suite ainsi de suite mais am na beneen xeetu ay métiers yu bees yu am yoo xam ne dafa am solo te xale yi dañ ci xarañ muy l' économie numérique économie numérique mooy infographie mooy lépp luy métier yu nekk si yi ngeen yor seen téléphone yi yi def snapshot yi def ak ci réseaux sociaux yi yéen a ngi Snap yéen a ngi Facebook yéen a ngi WhatsApp yooyu yëpp dafa am ay contenu waru leen doon di ko def ni mais da ngeen war a bokk suñuy dugal ay mbir ci mbir yooyu donc création boobu formation yu ndaw la laaj pour ngeen mën a bokk yéen itam ci ay producteurs de contenu donc loolu aussi économie numérique dafa bëri ay perspectives liggéey yu mu mën a andi recevoir ci biir DER bi jëloon na un milliard jox am les start-up ndax mooy structure yu ndaw yooyu yóbbu naa ko ba trois milliards à partir de ren. loolu perspective la pour ay junniy junniy junniy xale ak mu ne góor wala jigéen dinañ am seen liggéey am seen doole mënal seen bopp jàppale seen njaboot bu loolu weesoo nag jàpp naa ni euh, ci wàllu. li état def pour yokk liggéey bi am ngeen les domaines agricoles muy dak comme fii ci Sangalkam am nañ ko CFA am nañ ko dëkk yu bare bare dak yi aussi agriculture moderne la ñuy def ay ferme moderne avec ay tracteurs ay machines xale yi aussi nekk ay entrepreneur agricole loolu bokk na ci perspective d'emploi yi nga xam ne ñu ngi koy taxawal tey jii wan leen jox perspective loolu tax bu ma tànkee dafa am ci campagne bi ñoo xam ne dañuy jóg di wax campagne dafa yomb dañuy jox micro jox la télé am nga sept minutes lu nekk nga wax te loolu bu nee gis ngeen te loolu day war a def très attention xool bu baax a baax fan la njëriñu askan bi nekk ak surtout. lan moo leen mën a préparer pour l' avenir wax naa leen njàng mi la surtout